ñu ñëw si biir daayira bi nga xamante ni kenn si moom moo moom moo tax ñu sos ko muy daayira Fawzu wa Najaa mandarga axlu busura tey na boo gisee lu mel gis luy taaru na ku gis lii tamit dina xam ne daayira bu ànd la ci góor ba si jigéen mag ba si ndaw ñëpp manko jógee benn dëkk boole seen doole ak seen poste ñëw ngir jëmmal rasulullah salaay salaam si dëkk bu tedd bi di daaru salaam Plaza Mandaw ñu bëggoon a partager ñoom lenn si loo xamante ni bokk na seen initiative bu waral ñu def lii ak ban yéene lañu am si dëkk bi ak fan la ñu yéene seen association bii jëm kanam incha allahu rabbi waaw ñu léegi ñu parce que ne jàkkaarloo nga xamante moom mooy président bi asalaamaaleykum sang bi. waaleykum salaam sang ñoo ngi lay nuyu di siyaare. nga ñu wax tur bi. Euh, Alaaji Dramé lañ koy wax. président Fawzou Wanadia ñoo ngi nuyu waa euh, Sope Farokh TV yëpp euh, di leen sant di leen gërëm seen taxawaay ci biir dëkk bi seen taxawaay ci réew mi ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax euh, gannaaw bu ñu la nuyoo di la dalal fii si daayiratu Fawzou Wanadia leen wax ne daayiratu Fawzou jaa nii la ñëwee jógee Bousra dëkk Maolana Seydi Alaaji Alioune Atta Dramé nekkoon fa ak rakkam ba Alaaji Layen Atta Dramé Alaaji Layen Atta Dramé boobu moo may turu daayiratu Fawzou waaw ah, biñ ko ko ñaanee nag taaxeerlu ay weer soog ñu koy jox lu tax mu taaxeerlu nag moom moo ko xam diggante moom ak yàlla ak diggante moom rasulullah sallallahu alayhi wa sallam moo tax nag boobu léegi bi ñu ko joxee ba tey daayira bi kanam rek la jëm mosuñee eh, dikk at eh, at mi nga xamante ni jógee nañ ci eh, arrière bi ci ginnaaw. ñuy laajte mbootaay bi góor ak jigéen ñoo si bokk mag ak ndaw est bi waa Boussoura kese la concerné. waaw daayira bi euh, concerné wut waa Bousra kese daayira bi ubbeeku na dëgg la nag Bousra mooy fondation bi mais concerné am na yeneen dëkk yoo xamante ne yow mel ni Canta mel ni Baytit am na ñoo xamante ne bokk nañ ci daayira bi donte la seen dëkk am na ay daayira waaye xëy na cofeel lañ xool ci daayiratul Fawzul Wanadia ak ci seen engagement moo tax euh, ñu ñu jël euh, daayiratul Fawzul a adhéré si ak yàlla boole leen ak ñun waaw la ñu ngi leen di sant ñoom it di leen gërëm bu baax a baax Eh, waaw gannaaw ba ñu sant yàlla del leen santaat bu baax euh, daayira fa sart yi nga xamante ni moom la teg xamante ni boo si bëggee dugg am na ay carte am na euh, ay euh, président trésorier lépp loo xamante ni association dana kay am am na ko booy dugg dañ la jox ay sart yi sart yi mooy carte membre bi ngay duggee dafa am temps lay jar dañ la ko wax boo duggee weeru dee temps ngay joxe dañ la ko wax bu ñu waree def liggéey ci àll bi xam nga ay kat lañ ay saalum saalum lañ boo bëggee liggéey weeru de bu fekkee dañuy góob wala ñuy kii toolu jàmbur pour ñu fay ñu yooyu yëpp dañ la koy wax bopp boo xamante ne man nga respecté engagement yooyu pour boo ciy dugg yooyu yëpp dañ la koy wax fekkee ne mën nga koo respecté wala laay am lu nga dugg fekkee ne mënoo ko it wax dëgg yàlla duñ la wax ne bokkoo ci mais nag mbir boo ci bokkee te ku la na bokk la ca nga mer war nga jëfee sa kattan daal moo tax nag euh, tout daal noonu lay gën di demee comme ça mawlid rasulullahi waaw am na euh, ay yeneen activités yu ñuy def Boussoura am na yu ñuy def même même même Mbour def nañ fa ay activité euh, Boussoura ak euh, Daaru Salaam gi ñaari ñooy yi nga xamante ni moo gën a fees nag Daaru Salaam gi moo dañ fi ñëw siyaare boo dikkee tim nii laay mel même Boussoura siyaare bi nga xamante ne mooy siyaare alaaji Laayeen Atta Dramé ñi koy defal at mu jot Faw na Nadia da siy participer comme ni muy participer bi di siyaare bi nga xamante ni mooy yenen siyaare yi ne sa dëkk ba même treize mai da siy participer comme ni muy participer si bii moom kon Fawzul Wanadia international la daal mais du kenn fii rek danaay day day wër daal fépp foo xamante ne am na fa programme dana fa dem jëmmal fa li nga xamante ni moom la ko war a def moom la nga nekk président daayira bi ban nga si am. waaw di sant di gërëm ñi nga xamante ne ñoo sopp sama kaw c'est que dañoo baax rek mais ay ñëpp ñoo man président xëy na nag euh, mënuñoo ñàkk jiital kenn. xëy na man la ko yàlla dogal mais ñoom ñi nga xamante ñoo topp tax na mais ñi ngay jiitu day fekk ñi neex a jiite waaye comme euh, ñi may jiite ñoom daanaka ñoom ñoo ma jiitu sax booy xool kon moolu moo tax euh, sama sama nekk président gi mu oyof lool ci man ma leen di sant ñoom it di leen gërëm faw su na jaa ñu ngi ne ay gune lañ gune yu bëgg lu baax lañ gune yu bëgg seen bopp lañ gune yéen loo xamante ni euh, ñi ngi dans partout dans le Sénégal président ba léegi rek ñu poursuivre question yi mais mu ngi xewee fii seen site nga xamante ni yéen a ko safoo muy sopp Farokh TV monsieur le président ñu ñaa ah, léegi bu ñu boo gisee xale yi Pastef bu ñu am yëg-yëg bu ñuy am bu ñu si liggéey bi surtout nga toog gis leen kenn ku ne nekk si activité lu lay waaw damay yóbbu fu sori maanaam ñi nga xamante ni ñoo sanc Bousra daan ñëw fii Daaru Salaam seen pas-pas si kër Maolana Seydi Alaaji Mandaw euh, kenn mosu koo natable ki nga xamante ni moo sanc kër gi ni euh, alaaji Layène Atta Dramé ku ne yàgg na koo gis tant Dar Salaam euh, jamono ay Muntaxa Ndaw mu daan waxtaan waxtaan yoo xam ne dalaay leer na ki ak sawxu la daan waxtaane ak xam-xam boo xamante ni yàlla jox na ko kon euh, cosaan loolu moo fi des ba tey cosaan yooyu na moo dugg si xoli gune yi ak ragal yàlla ak yàlla neex leen ak Maulana Seydi Alaaji wa Ndaw bëgg ko maanaam moo tax cofeel googu ak dëgg googu ak pas-pas boobu kattan googu duñ ko desal buñ ne daaru salaam lañ jëm kon euh, maanaam loolu cosaan la ñu ngi ko doonee sa mag ña lañ ko doonee ñu ngi leen di ñaanal maanaam ñu gën a farlu gën a dëgër gën a xam ne lépp lu waaye di def te yàlla ta doo si am tànk ah, gannaaw moom tànk kanam rek ngay am waaw incha allah. incha waaw lan leen ñaax ci gën a liggéey ndaxte lu mel nii mënoo koo taxawal euh, te doo liggéey. liggéey nag moom du ne euh, fi da ngay euh, nekk rek ngay liggéey ku ne da ngay wër fu sa wërsëg nekk rek yàlla suufam si yaatu na kenn ku ne fa sa wërsëg nekk mais képp koo xamante ne yaa liggéey lépp loo bëgg def da nga def mais képp koo xamante ni danga ngaa toog faslante say loxo rek am na yu bëri yoo xamante ni sa xel dana si nekk mais sa euh, doole du ko man kon daal ndaw ñi maa ngi leen jiital ñiy liggéey gën bëgg yàlla bëgg bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gën a bëgg maalaana Seydi Alaaji Umar Ndaw tax defal nañu loo xamante ni amul kenn koo xamante ni defal nañu ko képp koo xamante ni mu ngay yëngu ak fu mën a yëngoo maanaam te ak la koy yëngal lu mu mënta mel liy yëngu fii ko ëpp kon li liy yëngu fii moo ñuy yëngal kon ku yëngu feneen bu ñu gën a yëngu kon nañ yëngu ki nga xamante ni nekk na fi tëlewut dara lépp loo xamante ni yéene nañ ko ko dañ ko ko ñaan te incha allah danañu ko may ñu ngi leen sant di leen gërëm bu baax yéen Top Farokh TV di leen ñaanal yàlla euh, mu yàggal leen fi gis nañ image bi man yàgg naa koo suivre au lieu que ma dajeeg yéen tey laa soog a dajeeg yéen mais yàgg naa koo bépp programme boo xamante ne bu ma tàppee sama téléphone lépp lu ngeen dugal dinaa ko seetaan dama ci abonné sax kon nag dama leen sant di gërëm di leen wax ne Fawzia wa Nadia yëpp comme ni ma koy suivre ni lañ koy suivre kon ñu ngi sant bu baax gërëm di ñaanal benn gàmm ak lépp lu fi waay ñaan yal ko yàlla nangu barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf monsieur le président leen ko ñu jiital mu nekk seen porte tour bi naka la. Ami Diop. soxna Ami Diop. waa daayira Fawzul Manajaa Manajaa. maa ngi leen di siyaare di leen gërëm di leen sant. soxna Ami job nek porte parole jigen bi ci si bi nga xamante ni mooy daayira Fawzul Manajaa. ñu am nañ ci yeg yeb bu bëri waaw ñi takko nañ top nañ goor ñi fas yéene liggéey lépp lu góor ñi ne rek ñoom tamit ñu ci dawuñ ci dara. ñun dañ ne natt dañ ne natt dañ ne ñafeteen ci tool yi di liggéey di daan doole pour ma gàmmoo gi bu ñëwee ñu génnee suñu xaalis def gàmmoo bu siyaaree ñëwee ñu génnee suñu def gàmmoo siyaare. léegi lu jëm si daayira Faw Soulou Nadiame est-ce que jigéen ñi dëkk si waa Faw

na dawuñ ci dara jàmbaar lañ lepp lu ñu wax rek ñom ñu ngi dawuñ dara sama yoy man kay fess del ma sha Allah ñun da dañu fess del wa suñ xol dafa fess bu ñu wax sax waaw di leen fatali yeen mbokk suñ internet yi rek ñu won fi ci daaira fawsul wana jaa fi ci Daaru Salaam nek jobot alaaji Laayeen Atta borom Busura moo fi nekkoon nekk kenn si muqaddam si ci benn ruqam moom it di duggal ay sachem seigne Cheikh li lu mu ak lu ko waral. li def de Fawzul Wanadia ñoo def maanaam bo gisee ben day mo lay Cheikh Sidi Alaaji Mandaw moo ñu ko ñaan da mo ñu waxone wa waxaab lanaa risqa daarayni bilaa xasafin maarif ya rasul allah moo tax luñ mën a am rek moom nañ koy jox waxoon na ne wa kullu ma wasaltoo min barakat fal taqi dana faydoo min dahawaat loolu moo tax Fawzul Najaat di def li lii nag ki nga xam ne moo ñu ko jàngal bañ yegg si fii daayira bi dem ba toll fii di def ay bernde yoo xam ni maam li yëpp ay bernde la gisoo suñ président bi moo nekk ni trésorier bi moo nekk nii wax dëgg yàlla kii nga maam ki ngeen gis ni mooy ki nga xam ne mooy président ci jigéen ñi ay jàmbaar yoo xam ne ni ngeen ko gisee ci waañ bi noonu lañ defee suñ benn ruq boo xam ne sant nañ ci yàlla bu baax ñaan yàlla nag mu yokk ni rek maam bépp bépp mbuus ni gis nga ko ma téyeku ni fas naa yéene def ci pom def ci banaana def ci benn euh, canette ak benn aliwit ak musuwaar ak leneen ak leneen fas na yéene daal dëkkam si bi ñu bend ko bu baax baax ngir jëmm ji nga ni moom la ñu màggal mooy mooy seedi wu jóodi wàllum soodi comme ni ko suñu wando waxoon wa kullu man jadda lil faosoo bi nabi xayra munkatibi ñu ne ko lu tax loolu maanaam lan moo loolu mu ne kooku nag maam ñëpp ñëpp dëppoo nañ ci mu ne watafaqal xuru turan anna mawlidoo xayru layaali ala ilaq nasimi ñi daan ànd ak jëmm ji nga xam ne mooy mawlaay Seydi El Hadji di sunu sunu sëriñ moom mi nga xam ne moo xamal Seydi El Ndaw ba nga xamante ni faosoo nadia yëgiti tur boobu jox ko tuddee leen faosoo nadia texe ak mucc kooku nag di ci def liggéey boo xam ni foog natt rek paas na ko moo tax ñuy def benn yi comme ni ko gisee ci waañ bi nii lañ fas yéene nag màggal guddi gi ba mu jeex tàkk fas yéene togg ay añ suñ paree togg ay reer suñ paree togg ay ndékke ba lépp jeex incha allah noonu lañ ko fas yéene Sope Farokh TV ñu ngi lay ziar nag bu baax a baax di la gërëm di la ñaawal yàlla fi nga xamante foo nga bëgg a yegg suñu borom yegg la dëgg yàlla Sope Farokh TV képp koo xamante ni xamoo ko tamit dégg nga ko ci liggéeyam bu baax pas-pasam yan yàlla fay la fayante ak yow bu baakha baakha baax li nga bëgg liggéeyal sayyid El Hadji Ndaw suñu borom defal ko ni nga ko bëggee ci barke bi yoonte bi sallallahu alayhi wasallam barke sayyid Seydi lan hatta assalamu alaykum wa rahmatullah inshallah sen Cheikh waaw comme ni leen ko waxee won rek sen Cheikh ak ay berndam boo gis ku ne xam ñi ñu paré la gis xam ñi yéene la boo gis xam li manko moko waral comme ni leen ko waxee won ñu duggé ci ñi génn rek inshallah rabbi dinañ leen doxal benen dig dajé ci benen association inshallah rabbi ci kanam lay doon